doomu séeréer la ndaysaan ñii naan ko Kalmu Ndour ñii naan ko Grand Mbagnick mu nekk ndaanaan boo xamante ni kenn ko présenté ci làmb gis ngeen ko noonu cosaan du réer ma nga sol yéen def jëfi cosaan ma ngay dox di ñëw ndànk ndaysaan boo ko xoolee xam ne doomu séeréer la boo ko xoolee xam ne deretu séeréer mooy daw ci yaram bi boo ko xoolee xam ni ndaanaan la ci wàllub làmb tol na ni ñoom mel na ni ñoom ci bëre bi mu ngi ci moom technique bi aussi mu ngi ci moom moom Grand Mbagnick ndaysaan mu war a laale le 25 juillet moom ak Eumeu Sène Junior waa rek DKR production ñoo ko organisé fële ca arène nationale mu doon bis boo xamante ni ndaanaan yi ci boole ci wàllub làmb bari na ndaysaan xale yi ñu ci boole ci wàllub làmb bari na boo ko gisee tey ci comportement bi nga xam ne ñibbi na fi mu dëkk tey làmb saa su ne lii la ñuy ci xale yi ndaysaan ma nga noonu am na lu muy góox ndaysaan gis ngeen ko am na lu mu takk ci loxo ba am na lu mu yor ci loxo bi moom grand Mbagnick ndaysaan wala moom Calme Ndour Calme mooy Grand Mbagnick Grand Mbagnick mooy Calme en tout lu mën a xew Adama xale baa ngi noonu ndaysaan doomu séeréer baa ngi noonu ndaysaan ma ngay romb di dongali ndaysaan ma nga noonu di daw ndaysaan lii lépp ci tegtalu làmb la hey Grand Mbagnick hey Calme Ndour hey doomu séeréer ndaysaan ma nga noonu ndaysaan Adama Adama kii kii ngay gis mooy tëggal Boy Niang numéro 2 fu Boy Niang nekk ci làmb moom moo koy tëggal tey gis nga ko naa Calme mooy wane ni moog Boy Niang junni la ak 5000 tur yee bokkul nag waaye ñooyam li muy jar ndeysaan xool ko ñu déglu tuus tuut. Miguel. premier combat Calme Ndour ak Eumeu Sène Junior yàggatul li si des bareetul fi mu toll amatul lu ñuy wax dañuy ñaan suñu borom may ñu fekke ak tal suñu borom may ñu ndam nan ngeen ko préparé boo ko xoolee xam ne pare na dafa am fu ñu déparé am fu ñu jëm am fu ñu toll fi mu toll nii li si des nag mooy combat la boo xam ne Eumeu dafa may sens ki nga xam ne mooy grand Mbagnick mu doon loo xam ne ñu ko siy remercier waaye nag di wax ne lamb garab la si kaw lay fekkante te fi mu toll nii mbañik yegg si na si seen kaw dañuy ñaan rek sunu borom defal ñu jàmm ba bés ba sunu borom may ñu ndam si kàttanu yàlla. adversaire bi nee na grand mbañik daf koo xeeb joxu ko cër bi mu moom ci lamb te bu bis laa dina ko corriger te grand mbañik dafa mel daa bëgg a ak moom ci combat bi. waaw li ma bëgg a wax mooy Eumeu Sène moom xam na ne ñun du ñu ay ngaaga. Mbagnick soo amee benn lu muy wax peut-être loolu moom la engagé mais ñun dafa am saf oto day am chauffeur fas day am jockey ñun ay coach lañ li mu bëgg la defal mën na waxee nag nu ko neexee daay combat bi mais Eumeu Sène ku ko xam ku ne xam ne ku ko jël xam ne am nga combat parce que ñi mu bëreel Mbagnick bëreewul ak ñoom kon bu ko mayee sens da koy jox cër si biir làmb ji mais fi mu toll nii nag. dañuy jaay combat bi loolu rek la mais da jox cër bu mët sëkk. ma ñu gën a taxaw xeex ak Eumeu Sène. bëre ak door la ñu wax bu ñu fàtte ne Mbagnick am na ñaari kaawo de ñi ñu wax ne dafay mën xeex Calme Ndour dafa xeex ak ñoom kon nag Eumeu Sène na xaar rek jarul mu yàkkamti yàggatul <laughs> jaajëf. bu baax a baax. a ko préparation préparation bi nan la def. waaw préparé nañu combat bi xam la préparé nañu ko depuis daaw ba ren ñu ngi entraîné bàyyiwuñu ñu ngi préparé wu xam nga si tous les côtés boobu ba léegi bàyyiwuñu nag. waaw di ko ñaanal suñu borom defal ko ndam lu rëy waaw. en tant que naanaan ne ko ci làmb tey ñoom ñaar ñu war a daj ñoom Ndour lan mooy avantage am ci waaw avantage xam nga ñun moom dañoo nekk si école waaw ndaanaan bi yaay wax sax mooy loolu ñun defaguñ dara dañoo nekk si école di jàng mu ngi teg si code chaque jour chaque jour ñu naan père d'école ñooy nekk te entraînement mu ñuy teg si code ñu tere duñu digal ñuy def waaw te liggéey lañ loo xamante ni gëm naa ne combat bi gëm na sax na def deux minutes di ko diir rek gëm ko. dóor mu daanu mën naa ko. dóor mu daanu xaaral lépp yow. arbitre bi nag peut ñu dóor ko mu daanu xaaral lépp. adversaire bi nee na Calme Ndour bi nga xamante ne moom la am ci làmb ndax xamu dafa mel ni daf koo xeeb ci làmb ji yow gis nga loolu. non non làmb ji dafa toll foo xamante ni buñ ne buñ ne mag ak ndaw foofu cër waru fa daw dëgg la cër bi nañ la ko jox signature beeg yëpp mais war bi sifflé cër dagg foofu noonu waaw parce que da nga war a ñëw boo ndaw da nga war a wane li nga liggéey man loolu laa gëm. man maa ngi nii rek toog di xaar. proposé nañ ma adversaire yu bari ñi ngay booy yi ngay dégg ñuy sax salu si làmb ji proposé nañ ma leen ñëpp daw ñëpp amul ku si jël sama avance ñëpp a daw. laay Pythagore. laay Pythagore dafa daw. benn ne ko réel bii bëre grand combat bi moom dox nañ suñu combat presque deux ans dafa daw combat bi waaw. déedéet samay mbir yombul man damay xeex damay bëre. barke Serigne Bamba damay xeex damay bëre. booy bëgguñu koy xeex di damay xeex damay bëre. barke Serigne Touba Mbacke damay xeex damay bëre ñu bëre. gars yi nañ bàyyi grand frère comprendre ñun bu ñuy seetaan grand frère ay Issa Pouye ay Abdou Diouf ñu leen di seetaan boobu ay tout xale yu ndaw lañ comprendre la bu ñu demee ba gars yi di bëre ñoom te ñun morom nekk ci làmb ji ñu war a bëree ñun suñu biir ñu dem di jël paay loolu saa yi lan la nañ ñëw ñu bëre suñu biir moo doon moo ko teree neex ambulance bu Thiès proposé nañ ma ko muy laaj loo xamante ni mosu ko fayeku gars yi nañ bàyyi li ñuy def ñëw ñu bëri ñoo mën a mën a taxaay suñu biir xam nga loolu jaaduwul mënuma nekk xale nekk seen làmb ji nekk xale bu ndaw ñu jël xaalis bi di ko jox grand frère bëre ñun ñu war a dimbali suñu ay yaay ah gars yi am nañ li ñu am si làmb dañ ñu xajal ñu ñëw combat léegi du ah di nga am combat a bëre damaa war a bëre ay ndaanaan laa jógee Serigne Ndiaye numéro a bëre damaa bokk si làmb mbëru gox laa mbaa gi ba topp gars yi nañ ma jël ma bëre jaajëf. ñu ngi leen di nuyu ku ci nekk sa tur ak sa sant di leen jaajëfal bu baax a baax rawatina waa Kër Massar bi nga xamante ni ñoom la fekk si tey ndax boo gisee presse bi yëpp ñëw dafa am lu leen tax a jóg li leen tax a jóg mooy bis bu mag bi nga xam ni Calme mu ngi ko war a bëre ak Eumeu Sène Junior mu jëm vingt cinq décembre fële ca arène nationale. 25 juillet 25 cëm. laay tabaski bi yóbbu na suñu bopp le 25 juillet fële ci arène nationale waa rek Dakar production ñoo ko organisé mu war a laaleeg Eumeu Sène junior Eumeu Sène keroog bi muy mujj arène nationale ndam la fa jëlee ci digganteem ak Bour Sine moom mi yaakaar naa suma ma juumut ci ndam la jóge wala déet. waaw ci digganteem ak Pape Yekini. ci digganteem ak Pape Yekini ñoom ñaar ñëpp ñu ngi war a laale ci bis ba. moom mu mujj stade Iba Mar kee mujj arène nationale. moom dafa mel ni bii mooy première sortem arène nationale. wala deuxième deuxième tey nga war a laaleeg Eumeu Sène junior préparation bi naam combat bi dañ naan dañuy tabaski ba mu des juróomi fan yaakaar naa ngeen laale yéen ñaar préparation bi nu muy demee ak Eumeu Sène junior adversaire bi loo koy wax. waaw avant tout d'abord ginnaaw mis sant yàlla jul si yonent bi maa ngi sant sama ñaaru waajur bu baax di ñaanal sama yaay fu mu tëdd gënal ko fu mu jóge di ñaanal sama papa gudd fan ak weer di nuyu sama mag bi Maam Ndour ak Père Xës ñu àndal ak ñoom Zambala suñu waa yëpp ak Ibrahima sama xarit bi ak ñoom Talla gars yëpp waa dibiteri yëpp waa kemasaar Massar unité 12 yëpp bàyyuma kenn maa ngi nuyu bu baax di leen ziar ñoom ñëpp ñoom Big Mama ñoom Fara jóge ba Kër Mbay Fall ñëw ak sama waa ji dëkk jóge Palmarin ba fii nag maa ngi koy nuyu bu baax xama ñoom ñaa nuyu sama tëggkat bi nag gànna maa ngi koy nuyu bu baax ñoom Fatou Bangaleer ak ñoom Moussa Bulus yëpp ñoom Madi maa leen nuyu bu baax si di leen jéegalu tamit si déplacement bi parce li yombul nekk si digg préparation tabaski ngeen bàyyi seen yite yëpp ñëw teewal ma loolu tamit maa leen nuyu bu baax di leen jaajafal waaw di nuyu suñu waa dëkk nag di nuyu Fogole séeréer laa dina mi grand mbañi ko bii nun xarit nun fo bii nun ndokoor nun oxo naa nun jaajëfa a nun a sak oxana nun ñaan chaque jour no combat fa neke jublu oma xedaa ci am te ndam fa gutu si kattanu yàlla waaw. adversaire bi Eumeu Sène Junior combat bi daanaka préparation bi met wàcc yàgg na metti woon na loolu waaye dem nga ba ci càppandaw ga yegg ngeen ci bis bi seen diggante yéen ñaar lan nga fas yéene jëflante ak moom. waa lépp sant yàlla rek di nuyu tam suñu waa daayira waa kër Cheikh na Cheikh Saad bu di nuyu suñu xalif général Cheikh Aya ibnu Cheikh Talibouya ibnu Cheikh na Cheikh Saad bu di nuyu sama sëriñ Cheikh Sidi Xayri du Cheikh bu naan doomu Cheikh Talibou ya maa ngi koy nuyu bu baax di gën a sàkku si ñoom ñaan di nuyu sama yaay maman Ndeye Marème Fofana maa ngi koy nuyu bu baax ca Mermoz di nuyu nag Mitterrand muy ba France jàpp na si combat yi bu baax jox na ma xaalis bu bëri pour si combat bi maa ngi koy nuyu ak jabaram Aana waaw combat bi nag waaj nañ ko ak nuñ koy waajee waaj nañ ko ak suñu mbokk comme nuñ koy waajee combat yëpp parce que benn combat man mën naa wax ne am na amul benn combat boo xamante ne mun na tama dépassé jamono ji ma nekk parce que combat bi ak combat Pape Yékini ak combat ak Ndiaye Tine laa ko jàppee Eumeu Sène junior Eumeu Sène la Calme Ndour ma Ndour la am combat boo xamante ne comme mun na ma jaral ko ma def yoo xamante ne mosuma koo def sama combat ni may préparé laay préparé ñi ma daan àndal laay àndal ba keroog yàlla di ma may ndam maak Eumeu Sène junior Eumeu Sène junior dafa am lu wax mooy combat bi da nga ko respecté wul ko cër bi mu moom ndax ñàkk koo xam moo tax joxoo ko cër bi moom mais bu arbitre bi tëjee barrière yi dina la ba ci kaw dóor ci suuf loolu lan nga ko ci mën a wax. arbitre bu sifflé ñemewu maa fixé si bët bu arbitre dañee suñu diggante li ma ko waxoon face à bi keroog barki démb laa koy waxaat combat bi amul lu ma koy jox cër amul ba keroog ñuy àgg suuf dama koy manqué respect di ko humilier ba keroog may yéeg si kawam. jàpp nga ni non day yomb man déggoo li ma la man amuma lu kenn combat bu ma mën a jaaxal si Sène junior bu abbi si abbi moo sifli ñàkk a sifli dindi loxom ma dal ci kawam man amuma lu may sóoraale si moom wax naa ko. diggante moom Bour Sine seetaan nga combat bi ni mu demee ak ni mu def ba génn. non moom Bour Sine moom Bour Sine la Bour Sine li nekk sama bopp nekku si boppu Bour Sine nekk sama bopp nekku si boppu Limousine pareil que général Malika pareil que ñu mu bëreel comprendre nga man la Kalmu Ndour la waaw mbër bu nekk nag ak ñu muy ñi ngay bëreeg moom. xëy na ñoom ñoo leen mayoon comme mu temps boobu suñu waa rek fu ñu jógee dafa sori comme talu ma nekk fii léwétoo jëmale suba non non moom géejawaay la ñibbi suñu waa rek dañuy dugg saret dugg gaal duggu oto kon man aw ma jot ñëw léwétoo fii jëmale suba non non te yab ma waa Kër Masaar yab boo xamante ne dinaa am temps di léwétoo jëmale suba non non man xale laa am naa doole liggéey naa lu ma mën a may ndam te ànd samay mbokk te samay mbokk bëgg nañ ma kon si kattanu yàlla albisif la ma jëf li nekk sama xel daan ko libéré gars yi. nee na xeex rek moo nekk sa xel mais boo xeexee dootoo xeexat. Eumeu Sène ñemewul xeex ak man. ñemewul taxaw xeex ak yow. li ma teg loolu. ñemee ñemewul xeex man bu albisif lee dina xootal leneen lu dul xeex man ñaata mbër laa dóor ñu kaawoo ñaata mbër xamal lu tax mu bàyyi loolu bañ a am adversaire bañ a am adversaire moo tax ñemeetuma sax taxawu nii di léwétoo di xeex ab bi bu sifflé rek ma def li may def ànd ak sama mag bëre li may bëre daan ñibbi. waaw. mu nekk ci nga nekk ci écurie bu mag. parce que fi nga ne ku ne xam na ne écurie bu mag la tey est-ce que seen seen seen seen tëdd fi lañ ko a waxee am combat est-ce que loolu du nekk pression si yow par rapport ak tey say naw yi yi nga fa nekkal te ni ko sawaay waxee dafa mel ni da ngaa umpale mbër adversaire bi nga am muy Eumeu Sène si ñoom. waaw ñun loolu loolu benn la euh, suñu écurie ñun ñëpp ay xale lañu. boo ñaa xale bu ndaw la Zambala xale la man xale la ñoom ordinateur ay xale la kon ñun amuñu loo xamante war nañoo dépassé ay mag a ñu yar ñoom père De Gaulle ñoom per xës ñoom Maam Ndour ñoo ñu dar ñoom père Lune ñoom per Maysa ñoo ñoo ne suñu ginaaw kon amuñu loo xamante ne comme dina ñu dépassé boo ñaa ñaa yàgg naa di bëreek moom boo ko moom bés wala ma bëre semaine ba dellu su mi bëre bëre naa ko euh, bi may bëreek Salbaax moom maa doon bëre spécial mu bëreek Guy gi may bëreek Pape Yekini moo doon préparé ak mook Sa kon man am na loo xam ne combat boo xam ne dina ko dépensé amul combat boo xam dina ma dépassé ndax ñun ay xale la ñu ñoo bokk préparation bokk même esprit lu ne sama xol lu ma ko yéene moom la may yéene Zambala parey ordinateur parey keneen ak keneen noonu kon ñun ñëpp ñoo bokk ndey ñoo bokk baay waaw. calme dégg naa sa biir wax nga ne euh, adversaire bi nga xam moom ngay bëreel muy euh, nu mu tuddati Eumeu Sène Junior comme combat la comme sa digganteeg Pape Yékini sa digganteeg Ndiaye Tine est-ce que xam nga ne boo ko basé wu ci loolu est-ce que doo xaw a doo xaw a def erreur parce que adversaire bi nga am nii ak adversaire yooyu bokkul. non déggoo li ma la xanaa Eumeu Sène junior adversaire la mais mënu maa bëre comme yàgg naa di bëri ci àll bi ñoo xam ne ñoo gën a luur Eumeu Sène junior te jommaluñ ma. kon Eumeu Sène junior munu maa def loo xamante ne wala mu toog di yéenu combat bi yóbbu ko foo xam ne non damay ñëw def leen comme ni ma def ñëw ñu. nekkul loo xam ne war naa nekk di si kii affaire yooyu respecté naa ko comme comme si comme nu ma joxee jëlee sama avance mais du ma ko respecté si biir làmb ja amateur yu dafa aay ci koo xam si ne bërikat la mais dafa aay koo xam ne xeexkat la est-ce que yaa li ma la lu ne sama bopp nekkul si boppam te bu ñu dalantee dina xam ne xale moo dal ci kawam dina xam ne bërikat moo nekk dal ci kawam man du ma juum de ñuy ñuy juum ñuy juum lay daan man du ma juum si bëre waaw man question moo koy laaj mooy gis nañ ne ndaw ñi fi gën a të bañ amee Eumeu Sène da leen a freiné est-ce loolu yaa ngi koy nga laaj nga laaj ko nag mag ñi gën a të man maa leen të freiné te mag ñi gën a të ñemewuñ jël sama avance waaw loolu laa lay wax waaw. ñu lay jaajëfal bu baax di la bàyyi nga woote ko defee ñu jox dig daje ba le 25 juillet arène nationale incha allah. waaw euh, comme d'habitude comme li ma ñu may jàppale maa ngi leen di nuyu bu baax di nuyu euh, maire de laa Euh, maître Karim Sène maa ngi koy nuyu bu baax parce que jàpp na si combat bi ak maire Diofior euh, ak Biram Mbaru directeur de la monument de la renaissance euh, jàpp na si combat bi bu baax ak maire Joal Pape Boucar ñooñu tamit jàpp nañu si combat ak Matar Ba ministre des ak Matar doomu Diofior doomu Djilor bi kooku tamit jàpp na si combat bu baax ak maman Ndeye Marème Fofana maa ngi leen nuyu bu baax ak sama gars yi nekk si diaspora bi sonn nañ si combat bu baax jàppale nañ ma. xam nga te ñu ngi sama ginnaaw ak sama waa fan si club sama waa fan si club dama koy wax di ko répété waat ñoom grand latir kooku daf see sonn man maa ngi koy nuyu bu baax moom mu ngi fi ak ñoom Maymuna Ndong xam nga ñoom Tata Ndey Ndior xam nga bàyyiwuma kenn xam nga ñoom grand Ismaila Ndiaye kooku kenn la ñoom Sinaay Peur bàyyiwuma kenn fan si club bi yëpp maa ngi leen di nuyu xam nga di leen kontaan si ñoom parce que gis naa seen taxawaay di nuyu nag gën a nuyu waa suñu waa dëkk di leen wax ne da moƴo mobiliser o a paax comme de ande xaye on debdenten hewdu o xew hewdu den ngara ngeno xam a ndamtam bo roga ci'e in ndamtoog o moseen signor i Keur Massar tamit wa Keur Massar waa Yeumbeul waa Boun wa Malika wa Jaxaay di zoo technique zoo technique jàpp na si combat ba ak jabaram maa ngi koy ak grand Babou Ndiaye xam nga ñooñu samay grand lañu samay lépp lañu samay xarit lañu laa mën a wax ak euh, ministère jabaram bi ak euh, nu mu tudd Mami gaa yëpp ñu waa bureau ba yëpp waa macha allah TV ñëpp maa leen di nuyu di leen kontaane di leen wax ne gis na taxawaay bi jàppale nañ ma xamante gis naa taxawaay bi rafet na trop waaw. rendez-vous. non vingt vous le rek comme wax gaay rek ñu gën a def mobilisation di woo gaay si fair play waaw waaw waaw di woo si fair waaw gars mhm, waaw xamat allah waaw waaw di woo gars yëpp si fair play xama di leen wax ne mobilisation en masse ñu defee comme niñ ko daan defee saa ne waaw di woo nag ñoom sayer xam nga ñoom. waaw ñoom Pa Ali Cissé xam nga euh, Pape Ali euh, borom festival. kooku temps yëpp moo may gérer bi. waaw damay si fas kii restaurant laay dóoree chaque jour. amate kooku tamit mooy lool di nuyu sama xarit nag Bukar bàyyi dafa bàyyi léppam ñëw déplacé ma woo ma Bukar li TV de. voilà Bukar Jon laay waxal. waaw dafa bàyyi léppam ngir man sama xarit la def ma bëggal boppam. Bukar li Bukar du dara di nuyu Amadou nag sama doom la. sama doom maa ngi koy nuyu bu gis naa taxawaay bi. xam nga depuis combat bu taxawee ba léegi dafa desee sonn xam nga mooy bu Boucar moom sama waay la mais mooy loolu. cere la quoi cere. jërë ngeen jëf.